quoi qu'on puisse dire euh, nous sommes une équipe euh, africaine et tout mm-hmm. euh, je me dis que pourquoi pas ñu impliquer tel joueur wala tel joueur bu fekkee ba cinq jours wala quatre quelque chose comme non, ça. c'est cinq quatre na. Ah mais man waaw championnat local bi. Mm. nañu waxante dëgg. amuñu cinq joueurs locaux yu am place fi équipe nationale bi. ah mais il faut se dire déglu déglu man laaj non non je ah, suis pas pessimiste je suis mm. réaliste. ok je suis pas un démagogue non. je suis président de club foot national bi. xam naa ci lu xaw a bari. et participer naa ci tamit tant soit peu amuñu joueur juróom. ñu am valeur bokk ci vingt cinq présélectionné équipe nationale A amu fi. ndax. niveau bi. seen performance. mais mais je parle mais, le contrôle de Cheikh Sidi. mais mais ay ay ay. xam nga lan laa d'accord man sama gis-gis jàpp naa ne fii ñu toll bu ñu fi tolloo ci équipe nationale mhm. war nañu et le ça c'est le bon vouloir du coach c'est sa responsabilité de sélectionner mhm. mu ubbil chance de maximum trois joueurs locaux pour qu'ils s'imprègnent de la vie de l'équipe nationale ah loolu d'accord naa mais dama ne su fekkee nag dañ ko teg rek ci critère performance yi ñuy sélectionné. des amu ci. bay amul ci bay des. dafa amul mais mais mais mais. il faut se dire se dire xalaat.